amnistie bu bëgg a effacer ay mbir yu xew fii ci Sénégal diggante atum 2021 ba atum 2024 jur na coow file la waral loole laata sax wooteem loi bi mu ngi tukkee ci ay xew yu fi am yàggul dara ñu bëgg ñu fàtte ko loi d'amnistie bi ñu dugal foofee ca pencum ndawum réew ma looloo tax mu yéeme loola ay mbir yu ci mel ni ñu ñu tegoon loxo wala sax ñu génne leen kaso nara jëfandikoo loi bile taxul ñu contre ko ndax ñoom ak seen njaboota danañ kontaan lool ci génn ci kaso bu metti boobee waaye mu beneen pàcc moo xam ni ay acteurs politiques la bokk ci ku kujje yi wala société civile di bañ luwaa bi jàll ndax la ñu bëgg mooy mbir yi leer ba noppi waaye itam ñu jox ay ndàmpaay ñi ñu tëj te defuñu dara mënuñu benn yoon effacer li nga xam ni ay nit dund nañ ko ci lu metti lu ci mel ni torture wala sax lu dul yoon loo xam ni pàcc bu am solo ci askan wi dund nañ ko mu di luñ dul fàtte ba mukk loolu tax ba baale du leen yomb benn yoon tànk dëgg feeñul ñu delloo seen ak ak seen yelleef ñi ñu tooñ jàmm mënul amaat diggante nguur gi ak kujje gi nga xam ni bëri na ñun ci tooñ humilier leen génne leen ci nguur gi bu ñu bëggee jàmm ñëwaat ci làngu politique gi rawatina ci réew mi ñu balante ci lu dëggu faaw rek ñu doxal yoon ba noppi soog a wote ab loi d'amnistie ndax loolee su amul xiiroog ngayoo dina woy di am ci réew mi ci at yu ñu dëgmaa